bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadi wa wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne ci lañu nekk di leen ndokkeel ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp lu ñu def ci xeeti jaamu yàlla yàlla na ko yàlla xool ci ak matam ak mbaaxam te bañ koo xool ci sunu defin wala sunu doyari ca mu nangul ñu ko lépp loo xam ne mooy sunu rëcc rëcc moom mii aji yërëme ji di aji jéggale ji di aji jëlale ji yàlla ñu jéggal sunuy <clears throat> bakkaar yu ndaw ak yu tuuti ak yu mag yu feeñ ak yu nëbb yu ñu xam ak yu ñu xamul yu ñu tay ak yu ñu tayul ginnaaw loolu mbokk yi ñu seeni ànd ak yéen ba léegi rek ci jataay yi ngeen baaxoo ànd ak daayiratu muqaddamatul xidma ci biir weer koor yi di jotaay fàttalante jotaay dimbalante ak mbokk jullit ci seen diine di jotaay yu am solo yoo xam ne ku miin daayira bi miin nga ko yàlla na yàlla fay aw yiw te nag mbokk yi ñu jël benn tomb ci tomb yi ñu baaxoo waxtaane mu ñu yitteel diine ji muy addaawatu ila allah mafhumun wa usul mooy woote jëme ci borom bi tabaraka wa taala mu woote jëme ci borom bi tabaraka wa taala jotaay bii ñu séq ak mbokk mi danañ ko leeral ci kanam day leeral lan mooy woote jëme ci borom bi tabaraka wa taala dëgg-dëgg mooy lan ci na mu gën a leere yan usul la am yan mooy yoo xam ne mënut a ñàkk ci ki nga xam ne mooy woote jëme ci borom bi tabaraka wa taala yooyu nag bu leeree rek dana tax ba ki nga xam ne moo doon góor góorgóorlu fas yéene nekk ab daa ilallah mu am ay cëslaay yu leer ci boppam bu fekkee mu amoon ko wala mu daje woon ci moom mu gën a góorgóorlu gën a laxasaay bu fekkee nag desoon na ci moom mu daal di laxasaay jéem koo wuti ngir ab wooteem gën a dëppoo ak li nga xam ne moom la lislaam diglee kuy woote jëme ci boroom bi tabaraka wa taala nga làmboo ko kon loolu moom mooy tomb waxtaan bi dëgg dëgg dëgg ki nga xam ne moom la ñu ko defal mooy ak docteur Abdoul Ahad Sani di ku ñu xam di boroom xam-xam macha allah di ab jàngalekat di ko xam ne dundam bi yëpp yitteem bi yëpp weesuwul di nekk kuy jariñ boppam di jariñ jullit ñi ci xam-xam loolu moom mooy yitteem mooy yéeneem yor daara ju mag di jàngal mbooloo ci funun na yi maanaam ci xeeti xam-xam yu wuute di leen ci taxawu di leen ci jàngal nekk koo xam ne it lii bokk na ci jumtukaay yi muy jàngalee mooy jumtukaay yi woo maanaam aw nit ñu daje mu toog ak ñoom jataay jottali leen loo xam ne dana leen mën a amal njariñ seen dund dundu àdduna ak seen dundu àlaxira naka noonu jumtukaay yi nga xam ne ñooy tas wax yi jël ko tasaare ko ba ku fekkewul woon jataay bayit man caa daal di jariñu ni ko daayira bi di defe jamono gi nekk kon du ñu guddal ci wax ji dañuy xam ne ne rek képp koo xam ne incha allah taala teewlu nga eh, danga mën a dégg loo xam ne da ko mën a jariñoo bu daanelee kàddu gi ñu doog a mën def suñ commentaire ci waxtaan wi euh, kon fadilat docteur bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bachir di ko ñaanal yàlla mu may ko fanu gudd lool may ko wér ba naal yi nga xam ni naal na ko ci liggéeyal diine ci liggéeyal xam-xam ak ci liggéeyal yoon wi yàlla may ko mu fekk meññitum lépp ci Sëriñ Touba. gannaaw loolu it ñu ngi nuyu eh, ñi nga xam ni ñooy njiit ci muqaddimatul xidma dale ko ci sëñ aafiya buso ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo nekk ci ronam di liggéeyal eh, xam-xam di liggéeyal yoon wi di liggéeyal it jumaa ji di am mbégte lool ci dajewaat ak yéen ci jataay yu màgg nii di jataay yi xam-xam ci jataay yoo xam ni jataay yi fàttalante la jataay yi jariñante la jataay yoo xam ni eh, alhamdulillah ña nga xam ni ñoo koy taxawe di ko saytu eh, dëgg-dëgg taxawaay wi ku ko gis walla nga dégg ko euh, da nga ko rafetlu lool ndax euh, thème yi nga xam ni daa iman ñu ngi ko fi traité thème la yoo xam ni euh, yépp rekk dafay delluwaat ci xam-xam xam-xam boo xam ni xam-xam bu set la bu sel xam-xam boo xam ni ku fi jógee walla ku ko dégg danga ci mën a jariñoo danga ci mën a yokkoo ci sa diine ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñëpp di leen nuyu ñoom ñëpp di ñaan yàlla mu defal leen defal ñu tawfiq zahiran wa batinan bi juudihi wa bi karamihi wa bi manni gannaaw loolu thème bii nga xam ni moom lañu ñu sas pour ñu waxtaan ci comme ni ko sunu mbokku daara waxe léegi al ustaaz Cheikh Alhaaji Njaay mooy tem boo xam ni mooy woote ci yàlla euh, déggin gañ ca war a am walla lan mooy woote ci yàlla ak lan mooy keno yi nga xam ni ci la woote ci yàlla tegu mu doon tem bu am solo comme tem yi fi jaar yépp waaye solo tem bi it euh, daf ca bokk ni tem la boo xam ni dafa soxal jullit bu nekk ndax jullit bu nekk imma nga bokk ci wootekat yi walla nga bokk ca ñañuy woo nga bokk ci wootekat yu mag yi walla nga bokk ci wootekat yu ndaw yi walla nga bokk ci ñañuy woo kon tem la boo xam ni ñépp la soxal ñépp a war a xam thème bii li mu làmboo donte la mu làmboo yépp ci ay maanaa mëneesu la traité lépp ci benn jataay waaye incha allah danañ ci def ay tënk yoo xam ni ah, mënees na caa tegtaloo ngir xam lu yaatu ci nga xam ni moom la tënk yooyu làmboo kon bu ñu woote ci yàlla mafhumam mooy lan mooy woote ci yàlla bu dee woote moom arab baat bi mi ngi koy wax ak daawa daawa mooy woote daawa nag ci araab cosaanam mooy daa mooy woote na daawatan mooy ak woote la ñu jubli ci woote nag mooy ak càkkutéef la ca ka ngay woo ngir mu wuyusila kon ki nga xam ni daawtahu yaa ngi ko woo pour mu wuyu mu wuyu si la ci jëmmam walla mu wuyu ci ay maanaa mooy loo teg ci loxoom ci ay xeeti xam-xam ak ay xeeti yeete yoo xam ni eh, dangay sàkku ci moom ngir mu wuyu si ci woote nag yenn saa yi dana doon woote jëm ca lu baax waaye yenn saa yi dana doon woote jëm ca lu kon woote dana doon woote jëm ci njub waaye woote dana doon woote jëm ci jubadi jëm ci cànkute eh, lay wone it ni woote dees na woote jëm ci cànkute mooy yonent yàlla yuusuf aleyhi salaatu wassalaam waxoon na ca jamono ya nga xam ni soxna sooson ko gundu ngir di ko woo ci loo xam ni neexul yàlla yonent yàlla yuusuf ñaanoon sunu borom ne ko rabbi rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'uunani ilayhi yàlla kat eh, dugg kaso moo ma gënal wuyu soxna sii ca lam may woo ndax lamu koy woo jëm ca lu neexul yàlla la kon ak daawa woote dana jëm ci lu neexul yàlla comme na muy jëmee ci lu neex yàlla bokk na ci liy firndeel loolu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masoon naa wax ay saxaaba yoo xam ni dañu jote woon ci seen biir ku ci nekk woo sa xabila ba nga bokk giir ba nga bokk pour ñu ñëw euh, faral la pour ñu ñëw xeexle la yonent bi ne leen abi daawal jaahiliyati wa ana bayna adhurikum ndax da ngeen di woote wooteb jaahiliya wooteku ceddo te maa ngi fii ci seen kanam jógeegu jógeeguma fi kon a daawa dana nekk ilaa euh, xayrin dana nekk it ilaa shar dana nekk ilaa xaq dana jëmit ila baatil eh, bokk na ci daawa yi nga xam ni daawa ju jëm woote bu jëm ci dëgg la mooy wootey sunu boroom comme ni mu ko waxe lahu daawatul xaq wootey sunu borom laa shakka ni moom rek mooy woote boo xam ni woote dëgg la yonent bi it ba mu yónnee ca Hiraql di buurub ruum boobu bokkoon na ca la mu ko waxoon ne ko ad'uuka bi diaayatil islaam maa ngi lay woo waaye du woote jëm ci sama bopp waaye woote jëm ci lislaam la eh, mu'minu aali firawna moom it ba mu tuubee daan nëbb tuubam bis ba mu feeñee ne ab jullit la bokkoon na ca lam waxoon wa yaa qawmi maa liya ad'uukum ila najaati wa tad'uunani ila naar kon nga gis aaya boobu boole na ñaari woote yépp yéen samay mbokk lu ngeen xewle lu xew ba tax ma leen di woo ci yoon woo xam ni bu ngeen ca jaaree mu yóbbu leen aljanna yéen ngeen may woo ci yoon woo xam ni buñ ca jaaree mu tàbbal ñu safara kon woote jëm ci aljanna am na mooy woote jëm ci lu baax waaye woote it jëm safara yit am na te mooy woote jëm ci sofaan bu fekkee ni nag woote bi nga xam ni mooy woote bi ñu tax a jóg mooy woote jëm ci yàlla woote googu kat boroom xam-xam yi taarif nañ mafhumu nañu mën a dégge woote boobu définir nañ ko ne mooy tabliixul islaami linnaas wa tab wa taalimuhu iyaahum wa tatbiquhu fi waaqii lxayaa am nañu ne mooy jottali lislaam ba nit ñi jot nit ñi nga jottali leen lislaam ba nit ñépp jot jottali goo xam ne yemul ci dëkk waaye yemul ci xeet waaye yemul ci askan waaye lislaam nga jottali ko mu jëm ci nit ñépp xamal leen lislaam it ak yacaaju yépp waaye it loola ngay woote nga jëmmal ko ci sa bopp fexe it ba nit ñi jëmmal ko ci seenu dundin nañu ne loolu mooy woote jëm ci yàlla am na ñeneen ñu ne woote jëm ci yàlla mool mooy albayaanu wa tabliigu li hada diin usulan wa arkaanan wa takaalifa wal xassu alayhi wa targibu fiihi nee nañu mooy leeral ak biral ak jottali diine jii di diiney lislaam li aju ci usulu diine ji mooy paspas ak lu aju ci ponki diine ji mooy ponki juróom yooya ñu xam ak juróom benn yooya aju ci pas-pas waaye jottali it li aju ci takaaliif ndigali sini sunu borom yi jottali it ba nit ñi xam ay tereem soññee ca ñaaxe ca eh, xirtal ca it nit ñi nee nañu am nañu ne loola mooy woote jëm ca yàlla kon woote jëm ca yàlla daal ci gàttal mooy xamle lislaam ci anam goo xam ni anam gu matale la anam gu jotale la xamle ko xamle googu nga def ko sa wazifa def ko sa liggéey comme ni ko yonent yi salawaatullahi wa salaamuhu alayhim defe woon seen wazifa kon loola mooy taarifu ad daawa ila llahi fi istilaahi al ulama eh, bu fekkee ni nag daawa moom lan mooy mawduam mooy woote jëm ca lan ca lan lañu war a woote jëme ca boroom xam-xam yi nee nañ la war a woote jëme ca mooy lislaam ci gàttal mooy lislaam boo wootee jëm ca lislaam mooy ni woote nga jëm ca yàlla boo wootee jëm ca lislaam mooy woote nga jëm ca alquran boo wootee jëm ca lislaam mooy woote nga jëm ci yonent bi woote nga jëm ci nit ñu baax ñépp ndax nit ñu baax ñi amuñu woon lu dut yooya kon woote mawdu am mooy fa muy tàbbi mooy woote jëm ca lislaam Eh, lislaam bi nga xam ni moom la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te it mu màndargaale ko alquran ji nga xam ni moom mooy téereb lislaam bi kon woote jëm ca loola mooy mawduu woote bu fekkee ni nag attey woote la alquran leeral na ci ay laaya yu bari sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ci ay xadis yu bari li nga xam ni mooy àtteeb woote jëm ci yàlla e, ndax it xamees na ni woote jëm ci yàlla moom alquran la mu leeral la mu jàngale mooy nii mooy wazifay mooy liggéeyub mooy xëy ak gontu yonent yépp te mu doonoon fardu ayni ci ñoom farata la woon ci yonent yépp ndax amuñu métier amuñu lenn loo xam ne daan nañ ca xëy daan ca gontu lu dut rek ci woote ci yàlla kon mooy doon moo doonoon seen wazifa moo doonoon seen profession moo tax mu doonoon fardu ayn ci ñoom waaye bu fekkee ni woote la ci ku dul yonent am na ci ñoo xam ni fardu ayni la doon ci ñoom comme na mu doone woon fardu ayni ci yonent ya ci koo xam ni yaa xam lislaam xam gu wér te fa nga nekk nga wéet fa ci xam ko bu boobaa dafay doon fardu ayni ci yow comme na mu doone woon ñu taxaw dafay doon fardu ayni ci yow comme na mu doone woon fardu ayn ci yonent yépp comme na mu doone woon fardu ayni ci yonent yëpp bu fekkee ni nag da nga nekk ci barab wala nekk ci dëkk boo xam ni daa mel ni Tuubaa xam ni boroom xam-xam yi macha allah bari nañu fi lool bu boobaa woote jëm ca yàlla fardu kifaaya lay doon bu amee ñu ko taxawe rek ña ca des wàcc na leen ña ca des wàcc na leen loola ci anamug woote goo xam ni dafay gën a yaatu waaye teewul yow nga xam ni doonte da nga ne ci dëkk boo xam ni ña mën a taxawe woote ba sakkan nañu lool ñu ne la woote far fardu kifaaya la ci yow du tee yenn saay woote doon fardu ayni ci yow te mooy foo xame ni gisees nga gisees na fa ñuy fay defe lu neexul yàlla wala ñu fay waxe lu neexul yàlla bu boobaa te nga mën faa digle bu boobaa digle fa day war ci yow day doon fardu ayni ci yow tere foofa tere foofa it day doon fard ay ni ci yow bu fekkee ni nag da ngeen faa limu ñaar ak ñett bu ko kenn ka defee wàcc na ka ca des kon wazifa yonent yi mooy woote jëm ca yàlla moo tax woote doon fardu ay ni ci ñoom ku dul yi nag woote mën naa doon fardu ay ni ci yow naka noonu mën naa doon fardu kifaaya ci yow Eh, laaya yi ñëw ci alquran di firndeel loolu laaya yu yu yu bari la lool bokk na ci fi suñ borom subhaanahu wa taala di waxe ni waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alxayri wa yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an ilmunkar wa ulaika humul muflixuun yàlla nee na daa mu am ci jullit ñi kuréel woo xam ni seen wazifa dafa war a doon woote woote jëm ci yiw di digle lu baax woote jëm ci yiw te woote jëm ci yiw mooy digle lu baax ak tere sofaan kon ñooñu sunu borom subhanahu wa dafa ne laa budda daa war a am ci xeet wi ñoo xam ni dañu war a ràngoo li nga xam ni mooy métier mu woote jëm ci yàlla te yi ndax mooy métier yonent yi dañu war a ràngoo métier moomu ba tax ñu doon ay wootekat jëm ci yàlla di digle lu baax waaye di tere lu bon yàlla ne na ña nga xam ni ñoom métier woo loolu ba ràngoo muhimma boobu ñoom ñooy ñi nga xam ni ñu texe lañu bu doon texe dana am man nañ ne ñu texe la ñu d'office seenu texe amul sikki sàkk yàlla subhaanahu wa taala moo leen dig loolu ba tey suñu boroom ci wàllu woowa it mu ngi soññee ila darurati daawati ila allah di wax ni udu ila sabili rabbika bilxikmati walmawidati alxasana wa jaadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa aalamu biman dalla an sabilihi wa huwa aalamu bilmuhtadin sunu borom nee na mu ngi digle di soññee ba tey gannaaw ba mu nee na am aw kuréel woo xam ni dañu war a jóge ci yéen jël may woote gàlloo ko di woote jëm ci yàlla ba pare nag muy jox ñooña ay directif di leen jàngal anam nga nga xam ni anam googa lañu war a woote moo tax mu lay wax ne udu na nga woote yow yonent bi ak ku doon woote kat ni yow di roy ci yow ci sa xeet na nga woote jëm ci yoonu sa boroom waaye woote ba nag na ànd ak ak xikma na ànd ak xikma mooy na nga xereñe woote ba fu ne nang fa war a woote wooteel noona ku ne nang ko war a woowe woowe ko noona waxtu ne la mu laaj jox ko kam ci woote loolu yépp dafay dugg ci xikma ka nga xam ni xupp ko moo koy amal njariñ kooka xupp ko ka nga xam ni neexal ko mooy tax mu wuyu si neexal ko kon loolu yëpp dafay dugg ci buntu udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati alxasana ak ak waare bu rafet bul gëdd nit ñi bul yuuxu nit ñi bul euh, naqari deret ci nit ñi ndax boo ko defee rek nit ñi daw la fa bima rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta faddan galida alqalbi lam faddu min xawlik yàlla la taw fii xale ba nga neex deret ndax boo naqari woon deret rek ñay toog ci sa wet kenn du fi toogati danañ lay daw kon loola ay directive la ay ndigal yu jóge ci sunu boroom di ca jàngale anam gi nga xam ni moom la wootekat bi war di wootee même bu yeggee sax ci nga dajeeg koo xam ni wuyu la waaye dafa la ñëw ci yow ngir dàgg santeeg yow yàlla nee na yonent bi na nga dàgg santeeg moom ci anam goo xam ni anam gu gu gu nooy la anam goo xam ni anam gu lewet la bu ko yuuxu bu ko gëdd ndax amaana noona la mën a def ba mën a yegg ci wuyu si la ci sab woote yemul ci loolu waaye sunu boroom nettali nañu ca xeet ya nga xam ni ñooñu jiitu woon la nga xam ni digaloon na leen ko ak ña nga xam ni ñoom ñoo doonoon seeni boroom xam-xam ci ni nañu taxawe woote ci yoonu yàlla ànd caag xikma ak mawida ak xasana waaye e, ñooña mujj bàyyi yoonu woote woowa ànd ak mbooloo mi ca nañuy dunde ànd ak mbooloo mi ca seenu nekkin ba yàlla subhaanahu wa taala ba muy alak ñu bon ñooña ñi toogoon bañ leen a woo bañ leen a jàjj ñooña la sunu borom boole alagandoole ñoom ñépp moo tax mu ne lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kaanu yaataduun kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu la ma kaanu yafaluun yàlla nee na yéefar yi nekkoon ci bani israil rëbboon rëbboon nañu leen ku leen rëbb sunu borom nee na moo leen rëbboon rëbboon na leen ci làmmeñu yonent yàlla daawud ak làmmeñu isa bnu maryam li ko waral mooy li ñu daan mooy yàlla lañu daan jalgati ba du ñu tënk seen bopp ca ndigal ya du ñu tënk seen bopp ca tere ya yàlla nee na loolu taxoon ma rëbboon leen ña nekkoon ci ñoom nag doon ay boroom xam-xam yàlla nee na ba may rëbb dama leen boole waale ca rëbb ga ba may alak dama leen boole waale ca alka ca alak ga ndax lan kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluuhu ndax daawuñu terante yu bon ya ñuy daan def donte defuñu ko sax waaye daawuñu ko terante ñaka daa def ci ñoom daawuñu leen tere lu bon loola ñu daan def ba yàlla di rëbb boole leen rëbb ba muy alag boole leen alag leen kon loola yépp dafay wane woote ci yàlla solo si mu am ba ñàkk woote ci yàlla mas naa tax sunu borom alag ay borom xam-xam ay fóore ak i làbbe yu bare bare bari boole leen ak ñamu alak ci seeni xeet ndax daawuñu leen woo jëm ci yàlla daawuñu leen digal lu baax daawuñu leen tere lu bon teewul it amoon na ci banu Israayila it ñoo xam ni euh, ñu baaxoon lañu ay fóoreeki làbbe yoo xam ni ñu bon ña nit seeni nit bañ daan def lu bon euh, dañ leen daan tere ba ñu demee ba mënuñu ci ñoom dara ñu ber leen beddeeku leen yàlla nee na ba muy wàccee mbugal ca ñële ñii moom def leen musal ca mbugal mooma ndax daan nañ leen digal daan leen tere fa lamma nasuu maa dukkiru bi anjayna alladina yanhawna an issuu wa axadna alladina zalamu bi adabin baisin bi ma kaanu yafsuqun yàlla nee na ñooña ma digaloon ñu tënku ci samay ndigal wacc samay tere ba ñu dëddoo won gannaaw ndigal yooya di xuus ak nuur ci tere yooya am ñu leen daan tere yu bon yañ daan def nanguwuñ leen caa wuyu yàlla nee na ba ma leen di alak dama lee dama musal ña leen daan digal ak tere seppi leen ber leen ña nga xam ni ñoo doonoon tooñkat yooyu yàlla nee na ma mbugal leen mbugal moo xam ni mbugal mu bon la mbugal mu yées la ngir seenu caay-caay ga ñu nekkee woon kon loola yépp alquran la te dafay wane ni woote ci yàlla Euh, non seulement yàlla da ko digle waaye yàlla dafa joxe ay tegtal yoo xam ni yow wootekat ba ca tegtal yooyu nga war a jaar ci ni nga war a comporté woo yow ci sa bopp waaye it wane na ña nga xam ni dañu wuute woon ak ndigal am ñu leen mënoon a tere te daawuñu leen tere ba muy mbugal ñooñu daf leen boole mbugalaale leen ñeneen ña nga xam ni dañ daan wuuteeg ndigal am ñu leen daan tere ñooñu ba muy mbugal ñooñu dafa seppi ñi leen daan tere ber leen dal di mbugal ña ca des kon loolu yëpp day wane ni woote ci yàlla dafa am solo lool ndax mooy wawaif yi nga xam ni moom la yonent yi gàlloo woon def ko seenu métier daan ca liggéey Eh, bu ñu jógee ci bunt boobu dañuy dem ci li nga xam ni mooy ahdaafu woote ca yàlla woote gi ñuy woote ci yàlla lan lañu ca daa jublu lan lañ ci war a jublu eh, jubluwaayu woote ca yàlla bari na lool bokk na ci bayaanul xaqi wal balaaxul mubiin bayaanul xaq mooy leeral dëgg ak jottali goo xam ni jottali gu biir la jottali gu fés la Euh, jottali bokk na ca la koy firndeel li suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ndax yonent bi ñaar la ko yàlla joxoon alquran la ak lay leeral alquran di ko firi alquran ja nag moom la ko wax ne ko jottalee ko ni ma la ko jàngale yow yonent bi jottali lii ma wàccee ci yow mu jukkee ci sa borom Eh, kon loola ak woote la kon yonent bi wooteel nit ñi jëm ci alquran jii nga xam ni moom laa wàcce ci yow mu waxati ko ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun wàcce naa ci yow alquran waaye nag soxla naa it namm naa nga leeralal nit ñi alquran jii ma wàcce ci ñoom ndax alquran bi am na ci laaya yoo xam ni boo leen ko leeralul boo leen ko feccalul feccilul duñ ko mën a feccil seen bopp kon loola lépp day wane solo si nga xam ni moom la woote jëm ci yàlla am ba tax yàlla jox yonent bi ñaari ndigal yu jëm ci woote benn bi mooy jottali alquran beneen bi mooy leeral ak fiiri la nekk ci alquran kon bokk na ci hëdëfi woote jëm ci yàlla mooy jottali alquran ak leeral alquran leeral boo xam ne leeral gu biir gu fes la bokk na ci it ci ahdaaf yi euh, naxanteeg nit ñi pour ñu wuyu si wooteeb yàlla bi jëfe ko ci wax waaye jëfe ko ci jëf loolu tax na sunu boroom daan wax ne moom yooyu yàlla kat wala qad baas naa fi kulli ummatin rasulan an yabudu llaha wajtanibu taaxut mu jël woote yonent yi def ubbitey woote boobu mooy na nit ñi nañu jaamu yàlla moom rek te bàyyi taaxuut nga xam ni mooy seytaane ak xërëm yeeg xàmb yi yàlla ne na yonent bu ma mës a yónni loola laa ko yónnee ne nañu jaamu yàlla rek kon nañu wuyu si woote wi leen yonent yi di woo ci jaamu yàlla ci moytu jaamu taaxuut te mooy xërëm yeeg seytaaneeg lu aju ca yooya eh, bokk na ci it hadafi woote mooy ak tabshir wal inzaar bégle ak xuppe ndax ña woo ñaar lañu ñii danañu wuyu si ñii dana danañu lànk ña dëgër bopp nga xupp leen ña wuyu si nga bégal leen wa maa nursilu lmursalina illa mubashirina wa mundirin yàlla nee na yónniwu ma yonent yi lu dul ñu doon ay béglekat doon it ay xuppekat ndax ku ci nekk yonent yi daan nañ jëflanteeg moom ci dayo bi nga tollu ci wuyu seenug woote ak ñàkk wuyu seenug woote boobu bokk na ba tey ci jubluwaay yi am ci euh, woote jëm ci yàlla islaahu nufuusi wa tazkiyatuha yéwénal bakken yi ak sellal ko defar nit ñi ci gàttal kon defar nit ba dawru bi tax sunu borom wàcc ko ci kaw suuf mu mën a jooxe dawru boobu comme ni ko suñu borom bëggee li tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf mooy mu jaamu ko sellal jaamu ga kon woote ci yàlla bokk na ca ca suñu borom jublu mooy day defar nit ñi ba tax mission bi tax yàlla wàcce nit amaana bi tax yàlla wàcce indi nit ci kaw suuf nit ki man ko jooxee comme ni ko suñu borom bëggee subhanahu wa taala moo tax sunu borom di wax ni huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin nee na yàlla moo yónni ci arab yi eh, ci biir arab yi waxul baasa ila al ummiyin waaye fi l ummiyin ci biir arab yi loolu la muy tekki mooy nii yonent bi ci seen biir la jóge du ni ci arab yi rek lañ ko yónni waaye nag ab araab la bokk ci arab yi te arab yi am mbind ak um njàng bariwul woon ci ñoom moo tax mu ne moom yàlla mooy ki yónni ci biir arab yi nga xam ni am njàng bariwul woon ci ñoom yónni na ci ñoom ab yonent bu bokk ci ñoom yonent boobu nag saa su ne mi ngi leen di jàngal aaya yàlla yi te muy alquran waaye mu ngi leen di tàggat di leen defal di tazkiya seeni bakken di tarbiya seen ruux di leen defar di leen jàngal téere bi di al alquran di leen jàngal it xikmata imam shafii nee na xikma mooy sunna di leen jàngal sunnaam te fekkoon na lu jiitu loolu ñu nekkoon ci cànkute cànkute goo xam ne gu bir la kon nga gis ni yàlla ba muy wax la tax mu yónni yonent bi nee na bokk na ci ngir mu jubbanti nit ñi defar nit ñi nàmm ruu yi defar bakken yi ba mission bi tax yàlla bind doomu aadama doomu aadama bi mën a jooxe mission boobu ba keroog buy dajeeg yàlla fekk mu mën a at ngir mën a am ngërëmal sunu borom bokk na ci ahdaaf yi ba tey iqaamatul xujjati wal i'daar ila llahi bi adaa'il amaana nee na bokk na ci eh, taxawal aw lay taxawal aw lay ak dogub ngànt wëlis doomu aadama yépp ndax nag yàlla ba mu bindee doomu aadama ca ba mu leen waxee alastu bi rabbikum ñépp a d'accordoon ci ne ko yow rek yaay sunu boroom yaay sunu boroom nag la muy tekki mooy ni bu ñu wàccee ci àdduna yow rek la ñuy jaamu yow la ñuy jaamu la muy tekki mooy ni li la neex ci lañuy ci lañuy ñuy nekk li la neexut duñ ca nekk waaye nag kenn ci doomu aadama yi ba nga juddoo ba màgg fàttaliwuloo fàttaleekuwuloo loola fàttaleekuwuloo bis ba yàlla di wax alastu bi rabbikum yonent nag bu bu doomu aadama yi desoon noona ba wuyu yi seen borom bu leen laajee da ngay wax ni fàttalikuwuma ko ndax kenn ci ñun fàttalikuwul bis booba ku ko jàngut xamoo woon ni loolu mas naa am ngir nit ñi bañ a yey yàlla ngir ñu bañ a am aw lay ci kawam moo tax yàlla dog ngànt loola moo tax mu ne rusulan mubashirina wa mundirin li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul wa kaana allahu azizan xakima yàlla nee na maa yónni yonent yi ñu doon ñuy bégle doon ñuy xuppe ngir nit ñi bañ a yey yàlla bis penc ëllëg li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul ngir bis penc kenn bañ a am xujja kenn bañ am aw lay ca kanamu yàlla bis looloo tax nee na mu yónni yonent yi ngir mu fàttali amaana googa nga xam ni moom la jàppoo ak ñun ci lu jëkk ñuy ñëw ci àdduna kon iqaamatul xujjati wal i'daar ila llahi bi adaayil amaana loola dafa bokk ci jubluwaay yi tax eh, sunu borom digle Eh, jullit ñi digle yonent yi ñu woote jëme ca moom kon muhimmay yonent yi mooy woote waaye muhimmay yittey ñi nga xam ni ñooy ña topp ñëw ca gannaawu yonent yi surtout bu fekkee ni dañu doon ay borom xam-xam seen muhimma it moo war a doon woote ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firndeel na yàlla wax na ko loolu pour mu nettaliwaat ko ci alquran qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani mu ne yonent bi waxal ni woote jëm ca yàlla day wala lii ma nekke day mooy sabaw yoon yoon wii la ma yàlla xàllal ci yoon wii it la ma teg ma tegu ca dox ca te yoon wa mooy lan dama doon wootekat jëm ca yàlla woote laay def lay sama liggéey mooy woote jëm ci yàlla waaye woote goo xam ni dama ci ànd ak ay dalil yu wér kéng woote goo xam ne àndul ak teñax teñaxi woote goo xam ne àndul ak à peu waaye woote la goo xam ni day tegu ala basira tegu ci xam-xam tegu ci gis tegu ci yeewute nee na sama woote ci loola la tegu ndax nag yàlla ba mu digalee yonent bi pour mu woote dafa melal yonent bi ne ko wa daaiyan ilallahi bi idnihi wa siraajan munira nee na woote ga muy woote ci yàlla lu mu cay def ci ndigalal suñu borom la koy teg wa daaiyan ilallahi bi idnihi kon wooteem lépp lu mu cay wax lu mu cay def ci ndigal la ko daa teg kon looloo tax yonent bi ne yàlla ne ko waxal ni hadihi sabili lii ma nekk nii day mooy sama yoon wi nga xam ni fa la ma suñ borom teg te ca laa tegu mooy woote jëm ca yoonam wa waaye it woote goo xam ni lu ma cay wax lu ma cay def dama koy teg ci xam-xam waaye yemut ci xam-xam waaye dama koy teg ci ndigalal sunu borom mu ne man noona laa mel waaye samay gaañ ñi topp ci man it loola mooy rôle woowa ma am mooy seen taxawaay ñoom tamit ci woote gii kon loola day firndeel nii li yàlla digaloon yonent yi ci anam woote lu mel noonu it la digal ña nga xam ni ñooy boroom xam-xam yi ci ab taxawaay woo xam ni dañ ko war a am ci woote jëm ci yàlla kon bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci arkaanu daawati woote jëm ci yàlla dafa am ay ponk dafa am ay keno yoo xam ni ñoo téye woote booba dafa am loo xam ni cela woote ba di aju te loola ci gàttal boroom xam-xam yi nee nañu ñett la ba ca jëkk mooy aji woote ji ñaareel bi mooy kañuy woo ñetteel bi mooy la ñuy woote jëm ca te waxoon nañ ca la weesu ne la ñuy woote jëm ca moom mooy lislaam bu ne nee lislaam mooy alquran mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi nga xam nit ay niti yàlla lañ yoo xam ni ñoo roy yonent bi ci njàngaleem roy yonent bi ci wooteem seeni woote yépp mooy woote bi nga xam ni mooy mooy la nga xam ni moom la ñuy woote jëm ca waaye bu fekkee ni aji woote ji nag aji woote buñ la ko waxee mooy kii jottali lislaam mooy kii jottali woote boobu mooy kii jàngale xam le gi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan xamle mooy kii doxit jëm ca ji ci appliqué ci jëfe ndigal yooya kon kooka mooy ki nga xam ni mooy wootekat bi wala ñu ne wootekat mooy mu kallaf bi nga xam ni moom lañu wékk ci ndoddam pour mu woote jëm ci yàlla kooka nag laa budde ñu xam nan la war a mel ak moom mooy kan mooy kan moom mi nga xam ni moom lañu gàll ci ndoddam pour mu taxawe woote woowa kon kii woote jëm ci yàlla ginnaaw bu ko suñ borom xéewalee mu doonub jullit xéewal ko mu doon boroom xam-xam laa shakka ni war na xam ni wootekat bu jëkk ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni yow mii di woote ka ngay roy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy wootekat bu jëkk ba moom mooy ki nga xam ni moom la yàlla désigné woon tànn ko ne ko jiiteel ma woote bii ci lislaam yaa ayyuhan yaa ayyuhan nabiyyu innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiiran wa daa'iyan ila llaahi bi idnihi wa siraajan muniiraa moom la yàlla waxoon ne ko yow yonent bi man day dama laa yónni nga doonub seede mooy yaay seereel yonent yële fa ji yële fi jiitu woon nga doon kuy bégle it doon kuy xuppe waaye doon kuy woote jëm ca yàlla waaye woote boo xam ni lépp ci ndigalam nga ko teg waaye it nga doon làmp boo xam ni làmp buy leeral nga làmp buy leeral xol yi nga làmp buy leeral jikko yi nga waaye làmp buy leeral ak nite nga kon yow wootekat bi war nga xam ni taxawaay wii nga am muy taxawaayu bu woote sa royuwaay ca woote booba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent booba nag lii ndigal lii la ko yàlla jox pour mu wootee waaye it nii ko yàlla orienté ci na mu war a wootee tax na sunu borom naan ko wadu ila rabbika innaka la ala hudan mustaqim désigné naa la kon jógal woote jëm ci yàlla ta xam ni nag yow yaa ngi ci yoonu njub yaa ngi ci yoonu jub yaa ngi ci gindeeku goo xam ni ci yoon jub xocc nga ne wadu ila rabbik innaka la ala hudan mustaqim mu waxati ne ko wadu ila rabbika wala takunanna min al mushrikin wooteel jëm ci sa borom te fexeel bañ a bokk ci ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu loola yépp ay ndigal la yu jóge ci sunu boroom mu jubal ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko orienté ci anam nga nga xam ni moom la war a wootee looloo tax yonent bi ba mu demee nag ba yàgg ci woote woowa daan na wone boppam ci ni li ko sunu borom digal du dara lu dul muy woote jëm ci yàlla waaye muy woote jëm ci jaamu yàlla bañ a bokkaaleeg yàlla dara nee na loola mooy wooteem te ca loola la sax dàkk qul innama umirtu an abuda allaha wala ushrika bihi ilayhi adu wa ilayhi maa dañ ma digal ma jaamu yàlla bañ a bokkaaleeg moom dara lii day mooy sabab woote man yonent bi waaye ci lii laa sax ci lii laa dëkk te duma ko bàyyi ba faw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wazifaam comme ni ñu ko waxe mooy woote jëm ci yàlla te ci woote la sax nag ba keroog ba mu fiy jógee mi ngi seeraloo saxaaba yi ndax ci xijjatul wadaa mu ngi wax saxaaba yi ne yàlla kat daf ma digaloon ne naa jottali lam ma jox pour ngeen jot ci digal ma ne naa leen woo jëm ci yoonam wi amaana ëllëg dañan leen laaj ba xam lam ma doon jottali jottali leen jottali naa leen ko buñ leen laajee lu ngeen di wax saxaaba yépp waxandoo ci genn kàddune ne la la yàlla digal jottali nga ñu ko yonent bi dal di wax ne allahumma ashhad yow yàlla eh, seedeel ne lii nga ma yónni ci ma jottali ko samay nit jottali naa leen ko ba ñoom ñu ngi nii tey seede nañu ni jottali naa leen ko kon yonent bi sallallahu alayhi wazifaam moo ne woon daawa woote ci yoonu yàlla comme ni mu doone wazifa yi yonent yépp kon woote ci yàlla comme ni ñu ko waxee mooy wazifa yi yonent bu yàlla ma sa yónni ci kaw suuf bu ñuy jël misaal ci yonent yàlla nuux yàllaa ngi wax ci moom ne laqad arsalna nuuxan ila qawmi fa qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru kon nuux wootee nit mooy woote jëm ci yàlla mooy woote jëm ci jaamu yàlla saxal ni dëggal wéral dund amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla yent yàlla huut tamit loola la ko yàlla yónni woon jëm ci ay nitam wa ila aadin axaahum huuda qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru la yonent yàlla nuuxu waxoon la mu doon woote jëm ca yonent yàlla huud ba mu ñëwee loola la doon woote jëm ca yonent yàlla saalix loola la doon woote jëm ca yonent yàlla shuayb moom it loolu la doon woote jëm ca kon wazifa yonent yépp moo ne woon woote ci yàlla subhanahu wa taala yàlla firndeel na ko ci anam gu gën a yaatu mooy laaya ju fi tuddoon sànq wa laqad baatna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu taaxut kon loola dafay firndeel ni yonent yépp ci bokk yam seen woote moo nekkoon woote jëm ci lislaam moo nekkoon woote jëm ci yàlla moo nekkoon woote jëm ci E jaamu yàlla te moytu bokkaaleeg yàlla e ki nga xam ni nag moom la ñu takliif moom la ñu gàll woote bi ca kawam kan mooy ki war a woote jëm ci yàlla ki war a woote bi jëm ci yàlla ci anam ga gën a yaatoo booy jullit bu nekk danga war a doon wootekat jëm ci yàlla ndax nag ci jullit ñi la al ummal islaamiya di formé woo ci la composé woo kon umma bi ay jullit ñoo ko composé kenn ku ci nekk danga nga am masuliya da nga am responsabilité ci lii nga xam ni mooy wooteb lislaam nga bay ci sab nga bay ci sab def ci sa wàll e, ba mu mat sëkk kon jullit bu nekk dañ laa togg dañ laa takliif ngir nga doon woote wootekat jëm ci yàlla donte nag seen dayog takliif dafa ëppante dafa wuute am na ñoo xam ni dawru ba yonent bi amoon moom lañu am ndax la yonent bi jàngale woon dañ koo jàng xam ko man ko lool ñooña moom lu tollook la gàllu woon ci ndodd yonent yi ci woote lu toll noonu moo gàllu ci seen kaw ñoom tamit ci woote surtout ginnaaw bi fi yonent yi jógee mu am ñoo xam ni it ah, seen martaba xaw naa gën a wàcc tuuti comme seen xam-xam yeggut fenn fi waaye am na ci wàll woo xam ni suñu borom may na leen ci ñu ràññee ci wàllu xam-xam wàll woowa it la leen ci war mooy ñu woote ci jëme ci yàlla ba wàll woowa gën a leer nit ñi kon woote jëm ci yàlla kañ ko takliif kañ ko togg ka ko war a def mooy jullit bu nekk donte seeni responsabilité ci wàllu woote woowa dafay ëppante e, donte seen responsabilité tolloowul donte ñii fardu kifaaya la doon ci ñoom ñële mu doon ay ni ci ñoom ñii mu doon mustahab ci ñoom ñeneen ñi ku ci nekk dayo bi nga toll ci xam-xam ak dayo bi nga toll ci responsabilité kon woote jëm ci yàlla jullit ñépp la war yaa xam jullit bu góor la wala jullit bu jigéen la ndax ku ci nekk saa yoo gisee loo xam ni neexul yàlla ak foo ko mën a gisee la la war mooy nga digle ca lu baax digle lu bon euh, tere lu bon bu ko defee wàllu woote dox nga ci sa wàll sa kemtulaayu kàttan eh, jëlee nañ ci abu hurayra radiallahu anhu muy wax ni qaala rasulullah sal alayhi wa man raa minhum munkaran fal yugayirhu bi yadih fa in lam yastati fa bi lisaanih fa in lam yastati fa bi qalbih wa dalika adaafu liman abu hurayra nee na yonent bi sal alayhi wa sallam na képp koo xam ni gis nga ci yéen gis ci say ñoñ loo xam ni lu yella dila la na nga soppi loolu ci sa loxo mooy na nga ko faj ca saasa ak sa loxo bu jaree dóore nga dóore bu jaree xeex nga xeex bu fekkee ni man nga loola bu fekkee ni toll nga ci dayoy al inkaar inkaarul munkar bil yad boo ko mënul nga dindi lu bon loolu ak sa làmmiñ mooy nga waar leen xupp leen ngir ñu jàjju ci munkar mooma ñu doon def boo ko mënul la gën a néew nag mooy loola soof la nga bañ ko ci sa xol te loola mooy li gën a suufee ci wàllu al inkaar inkaarul munkar kon jullit bu nekk wareef la ci moom imma farda aynin aw farda kifaaya muy woote jëme ci yoonu yàlla te mooy digle lu baax ak tere lu bon e, jullit bu nekk dafa war loola dafa war ci moom ka nga xam ni moom ngay woowit mooy képp koo xam ni yàlla def na nga tane ko ci xam-xam wala nga gis mu def loo xam ni amaana da koo def ci réer wala mu def ko ci rëy wala mu def ko ci féeteerlu war na la yow jullit bi saa yoo gisee loolu nga digal ko tere ko kon ñañuy woo ñañuy woo dafa war a doon jullit ñépp ndax mission bu bi sallallahu alayhi wa sallama nit ñépp la concerné ndax yàllaa ne ko woon qul yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jamia yonent ya ko jiitu woon ku ci nekk boo daan woote sa woote ci sa xeet la daan yem yonent yàlla nuux yonent yàlla huud yonent yàlla saalix yonent yàlla shuayb yaa qawmi lañ daan xaata banteeg seeni nit waaye yonent yàlla muusa ak isa ñoom yaa bani israil lañ daan xaata banteeg seeni nit kon lool la muy wane rek mooy ni ku ca ne ca ñoom ñooña yàlla daf laa yónni woon ci sa xeet waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko yónni woon ci ñëpp kon yow mi nga xam ni yaay ndonol yonent bi ci woote sa woote dafa war a làmboo ñëpp képp koo xam ni sa baat jote na ci moom képp koo xam ni jàpp nga ni eh, nekk na ci loo xam ni neexul yàlla boobaa kooko la la war ci moom mooy yaatal sag woote ba mu jote ko ndax woote bi yonent bi tënkuñu ko woon ci ab xeet tënkuñu ko woon ci ab dii ab giir donte sax nag ci njëlbeenam eh, ngir at tadarruj fi daawa yàlla waxoon ne ko wa andir ashiratal aqrabin woowal say mbokk mu leen di woo di leen woo ba woo ba woote ba gën a yaatu yàlla mujje ko wax ne ko li tunzira ummal qura wa man hawlaha woote ba mu gën koo yaatal màkka yépp waa taayif yépp dugg ci ak la nekk ci weti màkka mu gi mu ne ko qul yaa ayyuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia kon nit ñëpp la woote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam concerné wooteem nag la ca jublu woon mooy génne nit ñi ci lëndamuk réer ak ci lëndamuk kéefër ak ci lëndamuk Euh, sikki sàkk yóbbu leen ci lëndëm ci ci leeraayu xam-xam moo tax mu ne ko kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur bi idni rabbihim ila siraati alazizi alhamid man maa la yónni jox la téere téere boo xam ni dama ko wàcce ci yow ngir nga jaare ca génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer waaye lépp rek nga teg ko ci ndigalal sa borom eh, teg ko ci ndigalal seen boroom teg leen ci yoon woo xam ni mooy yoonu yàlla te mooy yoonu lislaam eh, yonent bi subhaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla subhaanahu wa taala def ko it mu doon seere yonent bi doon seere ci xeetam ci wooteem woowa waaye xeetu yonent bi doon sere ci yeneen xeet ya wa kadalika jacalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala annaasi wa yakuna arrasulu alaykum shahida yàlla nee na ko man maa leen def ngeen doon xeet wu digg doomu ngir yonent bi doon seen seede ni ki ngeen doone seede yonent yi leen jiitu woon li takunu shuhadaa ala annaas wa yakuna arrasulu aleykum shahida ne yàlla man maa la def nga doon seere sa xeet waaye sa xeet ma def leen seere ñu doon seere yonent yi leen jiitu woon kon woote jëm yàlla it laa budda wootekat bi xam ni dafa war a sàmmonteeg euh, xaalu ki nga xam ni mooy aji woote ji danga war a sàmmonteeg sa xaalu bopp sàmmonteeg sa man-man sàmmonteeg sa kàttan ca na nga xam ni noonu noonu ngay wootee jëme ci yàlla ca na nga xam ni noonu ngay wootee jëme ci yàlla e, ndax it nag woote boobu ngay woote jëme ci yàlla yàlla subhaanahu wa taala du la ca sas loo xam ni munuloo ko du la ca sas benn yoon loo xam ni mënuloo ko ca woote ba laa yukallifu llaahu nafsan illa wusaha comme du la ca sas loo mënul daf ci am wàll woo xam ni waru la yow wootekat bi kam war mooy ki nga xam ni moo amee kàttan am na wàll ci woote woo xam ni buur la war te am na boroom xam-xam yoo xam ni nee nañu ñooña la yonent bi di xaata banteel ci fal yuxayyirhu bi yadi ndax buur moo mën a soppee ci loxo ndax boo gisee ku def naka sudut noonu nga jël sa jaasi si ko wala nga jël sa yar dóor ko bu ripostee loola mën naa jur jur fitna soo xam ni mooy gën a rëy sax fitnay mooy googa mooy yàlla moo tax al inkaaru bil yad boroom xam-xam yi nee nañu e, ka nga xam ni moom la ci yonent bi xaatabanteel mooy buur wala koo xam ni dafa am ak sañ-sañ sañ-sañ boo xam ni mën na koo may mu mën a soppi ak loxoom kon wootekat bi war nga xam sa dayo ba xam dangaa dugg ci ña nga xam ni mën nañoo soppee ci seen loxo wala danga nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy mën a soppee ci seenum njàngale soppe ci seen làmmiñ soppee ci seeni orientation ndax lu ci nekk rek dafa am ñoo xam ni ñoom ñoo ko moom yow wootekat bi it war nga jël woote bu ko wutal limite bu ko wutal palaas bu ko wutal bés bu ko wutal ñoñ foo xame ni rek barab bi mënees na faa jaare woote jëm ci yàlla na nga fa wootee yaa xam ni yaa xam guddi la yaa xam bëccëg la yaa xam ci biral la yaa xam ci yee ci ci yelu la yaa xam ci mbooloo la yaa xam porte à sax nga koy defee waaye war nga jël woote boobu def ko muy sax soxla saa su ne ndax yonent yi woote dañ ko defoon saa su ne boo delloo ci yonent yàlla noonu ba muy kalaamee nitam ya te suñu boroom bokkoon na ca la mu ko waxoon qaala rabbi inni daawtu qawmi laylan wa nahaara fa lam yazidhum duaai illa firaara wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asaabiahum fi aadanihim wastaxshaw siyaabahum wa asaru wastakbaru istikbaara summa inni daawtuhum jihaara summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara ana mi woote yépp yent yàlla nuuxa ngi wax ni def na ko nee na yàlla kat man samay ñooñ woonaa leen guddi woonaa leen bëccëg taxut ñu nangul ma taxut ñu wuyu si ma kon loolu lañ cay jànge mooy yow wootekat bi sa woote bu ko amal ab bu ko wutalu guddi bu ko wutalu bëccëg foo xam ni maqaam ba rek mënees na faa jàllale ak woote jëm ci yoonu yàlla rek profité ci nga jàllale sag woote jëm ci yoonu yàlla ndax nuux ak yonent yépp seenu woote àppaluñ ko woon utaluñ ko woonu guddi utaluñ ko woonu bëccëg fu ñu amee occasion rek dañ ko fa daan jàllale woote ci yel woote ci biral moom la nooxit di wax ni summa inni daawtuhum jihaara summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara woo naa leen ci biral ci mbooloo woo naa leen yuuxu leen ca kaw woo naa leen dee leen ci woote ga nu ne def naa ko fekk naa leen ku ci nekk fekk naa la sa biir néeg wax ak yow waaye daal ba tey rek mënumaa am ci ñoom ñu wuyu ma ndax ku nekk ci nit junni at yu manqué ci mbooloo ciw xeet junni at yu manqué juróom fukk te nee nañu bis ba muy dugg tuufaan la mu duggandoog ci tuufaan nga nee nañ weesuwul ñeent fukki nit ala kaw ci ku woote juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukki at kon loola moo tax ah, texul mu xaddi taxut mu yokkat taxut mu am malal benn yoon waaye daa wéy ca woote ga ba keroog yàlla di àtte àtteem di àtte sa digganteem ak ñoom woote bi bu ko wutalu barab foo nekk rek war nga fa mën a jàllale ak woote loola yent yàlla yuusuf war na la caa doy ndax yonent yàlla yuusuf donte mi ngi nekkoon ci kaso sax def ci kaso ba juróom-benn yaat teewul mi ngi doon profité di woote ci biir kaso ba jëloon na kaso ba def ko barabu wootekaay yaa saaxibay sijni a arbaabu mutafarriquuna xayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar maa tacbuduuna min duunihi illaa asmaa'an sammaytumuuha antum wa aabaa'ukum maa anzala allaahu biha min sultaan in alxukmu illa lillaahi amara an laa tacbuduu illaa iyaah dalika diinul qayyim walakinna aksara nnaasi laa yaalamuun nga gis woote ci yàlla Yuusuf ba mu koy def ba muy wax kàddu yi mi ngi ko fekk mu nekk prison mu nekk kaso kon yow sa woote bu ko wutalub ab ba muy nekk kaso mi ngi waxat ña nga xam ni ñoom la bokkaloon selil bokkam ñoom néeg ca kaso ba yéen ñi ma bokkal kaso ndax ay yàlla yu wuute yàlla ay yàlla yu bari moo gën wala yàlla mi nga xam ni mooy kenn ki nga xam ni moo noot lépp koo kookoo gën yéen ñi ma bokkal kaso bi li ngeen di jaamu jaamuwu leen dara lu dut ay tur ak i xërëm yoo xam ni yéen a ko wutal seeni bopp tuddeel ko seeni bopp yéen ak seeni baay xërëm yoo xam ni yàlla wàcceelu leen ci wenn wu lay ndax yàlla rek a sañ a àtte te la mu àtte mooy ni nañ ko jaamu moom yàlla rek bu ñu jaamu keneen ku dul moom te lii mooy diine du jub ji la ñuy jële foofu mooy yonent yàlla Yuusuf nekk nga mu nekk kaso nekk ci ay loxo nekk ci tëjte teewut mu ngi doon jàllale ak woote kon yow bi nga xam ne yaay wootekat bi sa woote ni nga ko war a wutalul ni nga ni nga xam ne noonu nga ko war a warula wutal temps naka noonu bu ko wutal barab boo xam ne ca ngay yemale sa woote xam ne bu ñu la nee conférence rek ci ngay woote ci ngay jàngale ci barab yooyu rek waaye bu amul conférence leneen lu jëm ci woote ci yàlla sa yoon nekku ca loola ab wootekat waruta waruta waruta mel noonu eh, beneen bi mooy wootekat bi it na xam ni lañu sàkku ci moom doonul mu forcer nit ñi ngir ñu wuyusi ko waaye jottali woote bi yàlla bi rek a ko war na ko jottali waaye kay gindikoo ku dul gindiku loola nekkul ci loxoom moom moo tax yàlla bu yonent bi masaa jàmbat na nga xam ni noona la nit ñi yéexe ci wuyuk wooteem ndax boo xoolee yonent bi woote na juróom-benn yaat bu ñee la Omar ibnul Xattaab mooy ñeen fukkeelu nit bu dugg ci lislaam te mi ngi dugg ci lislaam ci juróom benneelu atuk woote yonent bi kon nga xam ne toowu yokkute gi néew na lool waaye jàmbat googu yépp ak néew googu yépp teewul yàlla daan wax yonent bi saa su ne wa maa ala rasuli illa al balaagul li ma la war rek mooy nga jottali leen amaa nag kay jub ak ku dul jub amaa jël ak njub ak buyu si def ko ci xolu nit ñi yow yonent bi mënuloo ko kadalika allahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha yàlla nee na moom mooy sànq mooy sànq ku ko soob waaye it mooy gindi ku ko soob yow lala war mooy jottali rek la ma la jottali loo amma kii wuyu si ak ki dut wuyu si loola nekkul nekkul ci sa loxo la war rek mooy nga gindi nit ñi hadiya irshaadin wa dalaala ndax wàllu gindee ñaari façon gindee moo am gindee ci def hidaayatu ilhaamin wa tawfiq ak hidaayatu irshaadin wa dalaala hidaayatu ilhaamin wa tawfiq googa yàlla rek ko moom ginde nit ki mooy def ak jub ak baax ak gindiku ci xolu nit ñi yàlla nee na man rek maa ko moom keneen moom yonent bi bi mu nammee bàyyi taxam gindiku te yàlla nammul mu gindiku yàlla dafa ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha duniyaay gindi ku la soob man yàlla may gindi ku so ku kon jël ak gindiku def ko ci xolu nit ñi bi tawfiqi wal ilham yàlla rek ko ko moom kon yow wootekat bi bul sonn ci nit ñi neen force nañu nañ la wuyu si waaye sonnal rek ci jottali leen waaye bu fekkee ni nag won nit ñi yoon wi tegtal leen yoon wi jàngal leen ko xamal leen ko loola yenent bi mën na ko woote kat yépp mën nañ ko moom la yàlla di wax yonent bi ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow yonent bi kat yaa ngi gindee jëm ci yoon wu jub wi fële mu ne ko munoo gindee fii mu ne ko mën ngaa gindi fee da ko dàqal kon hidayatu eh, tawfiqi wal ilham fii mu dàqal mu saxalal ko hidayatul irshaadi wa dalaala kon woote kat bi na nga xam ni ka woo la la war ci moom rek mooy nga woo ko xamal ko jàngal ko yee ko loola rek mooy sa rôle ci moom amaa nag mu wuyu si la amaa nag mu amuk gindiku amaa nag mu tuub dugg ci lislaam wala mu jàjju bàyyi la muy doon def loola nekkul ci sa loxo ci loxoy sunu borom la nekk subhanahu wa taala ba tey wootekat bi war naa xam ni comme dafa doon ndono ci yonent yi war na xam ni woote bii kat daf caa war a nekk giiru dundam daf caa war a sax ba fàww donte sax kenn wuyuwu ko ci kenn wuyu siwu ko dafa war a sax ci woote bi ba faw donte kenn wuyu siwu ko buñ la nee nu wax def na junniyaat yu manqué juróom fukk di woote ci yàlla te ba muy ba tuufaan di ñëw ña duggoon ca gaal ga weetu weesu wu ñu fukki nit te mooy ñi ko gëmoon bu ñaare yonent sallallahu alayhi wasallam woote ne juróom-benni at Omar moo nekk ñeent fukkeelu nit bu dugg ci lislaam loola yépp lañ cey jëlee mooy ni wootekat bi bu mu yokkat bu mu découragé waaye na wéy ci wooteem donte sax woote na téeméeri at te kenn wuyu siwu ko yonent yàlla luut woote na yàq yu baree bari waaye keroog ba yàlla di alal nitam lañ fay dégge mooy ni kenn wuyu siwu ko woon lu dul ñaari doomam yu jigéen rek la àndaloon ca keroog ba yàlla di di alag ay nitam e, beneen bi yow wootekat bi war ngaa xam ni yoolub aji woote nekkul ci nit ñi ci loxoy suñ borom la nekk subhanahu wa taala li ngay woote li ngay jàngale kenn mënu laa fay yàlla rek la mën a fay kon sa woote ci yàlla bu ci sartante ñu lay fay bu ci sartante ku lay embauché ngir nga féete woo woote bu amee nag ku daba ku tabarro te yàlla rekk tax taawunak yow alal birri wa taqwa bu boobaa loo ca amee nga xam ni yàllaa la ko wërsëgal waaye bu mu doon sart ci yow ne doo taxawee woote googal lu dut ni dafa am ku la jël en charge pour nga mën a joxe sa woote ca anam la yàlla ko suñu borom digalee wootekat bi kon war naa xam lool ndax yonent yi ridwaanu eh, salawatullahi wa salaamu alayhim sahaaba yi ridwanullahi alayhim ñoom ci woote jëm ci yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla nan ci làmmiñu yonent yàlla nuux fa in tawallaytum fa ma saaltukum min ajrin in ajriya illa ala allahi wa umirtu an akuna min almuslimin yàlla rek a may fay kenn mënu maa fay ci yéen yeneen bi sallallahu alayhi wa waxoon na lu mel noonu qul laa asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l qurba lii ma leen di woo soxlawu ma ngeen fay ma soxlawu ma lu ngeen may jox soxlawu ma ngeen jiital ma soxlawu ma ngeen fal ma man daal la ma soxla rek mooy lii ma leen di woo jëm ca ngeen wuyu ma ca rek ndax ngeen man caa jaare texe e, wootekat bi it na xam ni dafa ame taxawaay woo xam ni mooy taxawaay yu gën a tedd ci taxawaay yi amee place boo xam ni mooy place bi gën a euh, ya bi gën yàlla gën a bëgg ci jaamam euh, di wax katu loo xam ni mooy wax ji gën a rafet ci wax yi laa bu mu yëgal boppam loolu ba tax ci biir wooteem mu yëg ci al izza ndax izza googu muy yëg ci wooteem da koy dimbali ngir mu mën a percer saa su ne di gën a yokk ak anam gi nga xam ni ci lay woote di gën a li ay pexe ngir ñamuy woo man koo wuyu si ngir ak wooteem gën a yaatu na xam ni kat la muy wax mooy wax je gën a rafet gën taaru ca wax ya wa man axsanu qawlan mi man daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin yàlla ne ana ki gën a rafet wax walla kenn gënta rafet ay kaddu kenn gënta rafet ay wax ka nga xam ni Ah, dafay woote jëm ca yàlla te boole ca muy def lu baax ba pare sax ci lislaam ah, di féddali saa su ne ne moom léppam da koo jox suñu borom wa qaala innani min al muslimin kon ki gën a rafet wax mooy kii woote ci yàlla ci gën a rafet jëf mooy ki nga xam ni it mi ngi woote tey jëfe la nga xam ni moom lay woote jëme ca te sax ci lislaam tey ndamoo ak julli tamit kooku mooy ki gën a rafet jëf mooy ki gën a rafet wax kon yoolu aji woote ji na xam ni ca yàlla la nekk na xam ni palaas ba mu taxawee place la boo xam ni place gënu koo kawe ci kaw suuf ndax mooy wafifatu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon kii woote na gëm ni képp mu woo mu dugg ci lislaam ci sababu wooteem booba na xam ni kooka yool bu mu am ci jëf ya muy jëfe ci ndigal ak bàyyi ya muy bàyyi tere yool wu mu ca mën a fàggu moom dana amaale ci yoolu kooka bu doon junni nit na xam ni bis bu ne ku ne yool wa nga am yoo mu am ca ñoom moom danañ ko fàggul ñooña te du tax dara wàññeeku ci yoolu ñooña loolu tax yonent bi saa sallam di wax man daa ila hudan kaana lahu min al ajri misla ujuri man tabia laa yanqusu dalika min ujurihim shay'a képp kuy woote jëme ci njub da nga am sa yoolu bopp ab yoolu képp ku la topp ci njub googa te du wàññi ci yoolu ñooña dara mu ñëwati yonent bi saa sallam wax ali ibn abi talib ne ko fa wallahi an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumuri naami naa ci yàlla ci islaam te yaay sa nga fexe gindiku gannaaw ba mu nekkee ci ak càamal ni loola rek moo gën ci yow eh, géttu gëléem goo xam ni gëléem yu mat sëkk lañu gëléem yu xonq cur lañ am na riwaaya bu ñëw bu wax ni xayrun min addunya maa ma fiha woote ba yàlla gindee kenn ci sag sabab moo gën àdduna ak la ca biir àdduna kon wootekat bi bu fekkee ni yooya ay ndénkaan la ci yu ñu jëmale ci moom ak ay melokaan yoo xam ni da koo war a melowoo naka noonu wootekat bi war naa ngànnaayoo ci wooteem ay gànnaay yoo xam ni dana ko mën a dimbali ngir wooteem mën a yaatu waaye ngir wooteem mën a tasaaroo waaye it ngir wooteem mën a dugg ci xol yi bokk na ci ngànnaa yooyu mooy mu xam mu am xam-xam saa su ne rek nay jéem di yokk ak ràññeem waaye di yokk it ak xam-xamam kon xam-xam mooy gànnaay bu jëkk ci ngànnaayu loo xam ni wootekat bi da koo war a gànnaayoo moo tax sunu borom di wax ni faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambik nanga xam ni lay wér mooy ni amut benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla kon xam ni laa ilaha illallah te laa ilaha illallah doon baat bi gën a rëy ci kaw suuf xam ko loolu du xam gu tuut loola xam-xam bu yaatu la kon borom xam bi wootekat bi dafa war a doon boroom xam-xam lépp loo xam ni dafay dugg fi itaaril xalaal ak loo xam ni dafay dugg eh, ci alxaraam xam li dagan lépp xamit li xaraam lépp loola da koy dimbali la muy digle mu xam ko waaye it la muy tere it mu xam ko dana ko dimbali mu xam ni lu war de eh, lu lu xalaal ak lu war ak lu ñu sopp loola lañuy digle jëm ca dana xam ni lu xaraam ak lu ñu sit la ñuy tere jóge ca kon ràññee gi muy ràññee xam gi muy am gi muy am xam-xam dana ko dimbali mu mën a ràññee la ñu war a digleeg la ñu war a tere waaye dana ko dimbali mu bañ a jaxase ndigal yi bañ a jaxase bañ a jël al maaruf def ko munkar wala mu jël munkar def ko maaruf kon ngan jëkk wa nga xam ni da ko war a yóbbuloo mooy mu ngànnaayoo li nga xam ni mooy xam-xam boo xam ne xam-xam bu mat sëkk la ñaareel bi moom woote kat bi dafa war a am diqa ca la muy woote eh, ca xam-xamam bu mu doon xam-xam boo xam ni dafay doon xam-xam bu léger xam-xam bi dafa war a sew te boroom xam-xam yi ne nañu xam-xam bu sew xam alxalaal wal xara xaraam jafewul xam ndigal yi xam tere jafewul waaye bokk na ci li gën a am njariñ ci woote mooy boroom xam-xam bi na xam alaaxira ak la aju ndax boo gisee ñu ne waare waare lu baree baree bari waare waare ci lu jëm alaaxira lay doon ci lu jëm àllaaxira lu baree baree bari ca loola la ñuy waaree xam lu jëm ci aljanna xam lu jëm ci safara xam lay aju foofa ca bis waaraatekat la ëpp ci seenug waare foofa lañ ko war a jëmale ndax lu jëm ci julli di ca wax am njàngale la lu jëm ci koor di ca wax am njàngale moo ca lu jëm ci wax njàngale la waaye di wax di waxtaane lu jëm ci bis pénc borom xam-xam yi nee nañu amul dara lu ko ëpp jeexital ci ab wootekat mu koy mu mu mu bari li mu koy wax mu xam lool lay aju ci wàllu wàllu dee lu aju ci sukuraat lu aju ci xaal yi doom aadama bi nekk ci buy faatu gannaaw bu faatoo lu jëm ci adaabul qabri ak naimuha lu jëm ci su munkar wa nakiir waaye mu fekk xam lool lu jëm ci eh, bis ba nit ñi di wuyu ji suñu borom bis penc lu jëm ci almizaan lu jëm ci mahshar lu jëm ci siraat lu jëm ci safara lu jëm ci aljanna mu xam lu ca lu xam ko xam gu yaatu lool ndax la ëpp ci waaraate ci wàll woowa la gën a jëm lu wuutee nag la ñu xam ni moom lañu gën a miin ci suñuy waaraatekat yi la ëpp ci suñu waaraatekat yi seenu waarate ci wàllum njàngale la gën a jëm wàllu luy tooyal xol yi lu baree baree bëri taag waaraate tooyal xol yi mooy tax nit ñi wuyu si la aji waaraate nit war nga fexe ña ngay waar ngay jóg di leen fekki ngay jóg di leen fekki ndax woote bu mel nii ci jumaa yi at ci jàkka yi ña mu soxal rek ñooy ñu wuyu si ña nga xam ni la ci ëpp waaru nañ ba noppi ña waaru ba noppi ñooña ñooy ñooy ñëw ci jàkka yi ñooña ñooy fekk si jàkka yi ñu am cofeel ci lislaam ñooñu ñooy fekk ci jàkk yi ñu bari ca ña xam ne ñooy teew ci jataay yii koo ca bàyyil boppam mën naa demal boppam ca xam la ko yàlla digal xam la ko yàlla tere ak yonent bi sallallahu waaye kon woote gi ah, fañ ko war a jooyale fa mu war a ëppee mooy ñi nga xam ne du ñuy teew ci jataay yu mel nii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa daan génn di fekki ña mu daan waar yonent yi dañ daan jóg di fekki ña ñu daan waar fa ci seeni kër nuux wax na ko woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg woo naa leen cig bérél woo naa leen cig yenu fekk naa leen seen i néeg fekk naa leen seeni kër kon waarete bi ëpp efficace efficacité mooy waare boo xam ni ka ngay waar danga koy fekki fa mu ne fekk ko ca la mu ne boo xoolee mbooloo mi ëpp réussite ci woo ci jamono jii surtout ci réewu tubaab yi at asiatique mooy jamaatu tablir dafa bokk ci mbootuk seen réussite mooy ñañuy waar ñoom ñoo lay fekki fa nga nekk ñu ngi ci bus yi di waaraate ñu ngi ci avion yi di waaraate ñu ngi ci métro yi di waaraate ñu ngi ci fépp di waaraate di dugg sa kër di la waar di la woo kon ñu bàyyi xel ni waare woote ci yàlla ñaar dafa am daf ci am solo te dafa mel ni nit ñi dañ koo xaw a ginnaaweel benn bi mooy fekki ka ngay waar ca fa mu nekk fekki ka ngay woo ca fa mu ne bu ko woo ngir mu fekk si la ñaareel bi mooy lu jëm ci wàllu dee ak wàllu xuppe ak yu jëm ci wàllu yooyu jëm ci wàllu àjjana ak wàllu safara lu jëm ci wàllu bis penc di ko bari li ñuy fàttali nit ñi ci njàngale mi ak ci woote bi loola laa budda it ñu bàyyi ci xel ne loola daa war a bari ci sunuy woote yonent yi salawaatullahi wa salaamu alayhim seen woote lawul daf caa bari lool la nekk ci woote ci ci ci invaar ci wax ci wàllu aljana ak safara bari na ci alquran la ñëw ci wàllu dee bari na ci alquran la ñëw ci wàllu almizaan la ñëw ci wàllu assiraat li jëm ci wàllu mbugal bari na ci alquran te yooyu dañu bari dañu war a bari dañ koy wax dañu war a bari dañ koy fàttalante ndax yooyu moo mën a tooy loo xal fàttali nit ñi ragal yàlla am na ci nitu yàlla yu yu mag yoo xam ni eh, eh, cay lu jiitu ñuy ñuy sóobu ay ay dañu nekkoon ci ay mbiru àdduna kese ku demee ni ku demee ni zunnuunil misri masalan bis lay dox rek dégg kuy jàng benn am am benn waay rek ne ko alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah li ko delloo si loola daf caa bokk loola daf caa bokk am nañu ne bishrul xaafi tamit laaya jooju moo tax ba mu ko déggee ci la daw summi dàll ya keroog la gën a sol dàll ba keroog na mu génne àdduna nekk rek ci ci ci ci ci ci dal di sóobu kon waare loola daf caa war a bari bu fekkee ni nag lu jëm ci ñañuy woo ñañuy woo bari nañu waaye ñi ci jëkk mooy yéefar yi ñaareel bi bokk na ci naafiq yi ndax yéefar daa bañ ba lislaam amee doole mu wéy ci mbañam ne du wuyu si waaye teewul bu ñu bàyyi nañ koy woo te boo xoolee sunu woote daa mel ni ña nga xam ni dañoo seen bopp ay wootekat tudde seen bopp ay duaat seen woote la ci ëpp ci biir jullit ñi la te nag étape bu njëkk ci woote mooy ku dul jullit nga woo ko ci lislaam loola mooy cosaan ci woote ab jullit lu ca jàngal ko la ak fàttali ko ak laabiire ko jullit des koy laabiire des koy jàngal des koy fàttali ku dul nag cosaan ci woote ñooñoo tax ab naaf cosaan ci woote naafiq yi la kon ñaareelu ña ñuy woo mooy naafiq yi ñetteel te ña ñuy woo mooy mooy yàlla lay doon ak jàngale lay doon ak laabiire lay doon kon ñii ñooy asnaaful maduwin kon woote ci yàlla bu ñuy tënk dañ naan mooy wazifay yonent yi yow mi nga xam ni nag da bokk min warasatil anbiya wazifa boobu boo ko jëlee bu ko bàyyil guddi bu ko bàyyil bëccëg na nga ca tegoo na ca yonent yi ridwaanu eh, salawaatullaahi wa salaamuhu alayhim tegoo na nga ca tegoo na ca saxaaba yi tegoo loola mooy lii tax woote ji réussite eh, dañu ñu jox eh, ishaara sànq ci ni ñi nga xam ni dañu doon ay gan doon suñu mbokk yi jóge misra doon biasatul azhar di jàngale fii ci tóokóor ba ñoom it dañu bokk ci gani jataay bi Eh, ñu waxoon ñi bu ñu leen mënee tënkal tuuti ci ñaari minute la nga xam ne moo doonoon maw bu waxtaan wi ala kulli xaal nurahibu bil eh, ixwati alkiram eh, bi'athatu al azhar alsharif wa naqulu lakum marhaban wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi rihaabi hadihi al muhaadara wa fi rihaabi hada almasjid almubarak وقد كان موضوع المحاضرة هذا اليوم huwa addaawa ila allahi mafhumuha wa usuluha wa qad dakarna mafhuma addaawati wa bayanna aqwal alulama fi mahiyati addaawa wa fi mafhumiha wa kadalika dakarna ma yataallaqu bi taarifi addaawati istilahan wa mawduci daawati kadalik wa dakarna aydan anna wadaifa arrusuli eh, hiya addawatu ila allahi subhanahu wa taala bal kaanat daawatu ila allahi min alwajibat alayniya fi xaqi rusuli alayhim asalatu wassalaam lakinaha aydan tadxulu fi itaari alwajib alayni ala kulli man tasadda wa asbaha warisan li arrusuli alayhim asalatu wassalaam idan addaawatu ila allahi takunu ahyaanan farda aynin ala baadi alulama wa takunu aydan farda kifayatin ala baadihim wa takunu aydan min almustahabat walmandubat ala albaqin wa addaawatu ila allahi waajibatun min waajibati kulli mukallafin hasaba ma ilmu wa hasaba ma wasala ilayhi maarifatuhu bi xaqiqati ma yudaa annaasu ilayhi وذكرنا أيضا من أركان الدعوة ومن صفات الدعاة وما ينبغي عليهم أن يقوموا بها وما لا ينبغي عليهم أن يقوموا بها كل ذلك لأجل نجاح دعوتهم وللوصول بالناس وبالدعوة إلى الهدف التي الذي رسم رسمت الدعوة لأجله فهذا هو خلاصة ما كنا نتحدث ونقوم حولها في هذه المحاضرة وبارك الله في جميع الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad bu am solo boobu xam ne moom la ko muy addawa Allah mafhum wa usul li ñu waxati jàllee ji rek képp koo ne yaa ngi doon teewlu jëriñu nga ci waxtaan xamal nañu ci njëlbeen waxtaan yi lan mooy addaawa ilallah mooy lan ndax xamal nañu ne woote moom mënees naa woote jëme ci borom bi tabaraka wa taala naa woote jëme ci ay jaaxal mënees naa woote jëme ci ak dëgg comme mënees naa woote jëme ci ak neen li tax tomb bi jug nag mooy woote jëme ci ak dëgg te mooy woote jëme ci borom bi tabaraka wa mu xam lañu kon loolooy tomb waxtaan mu leer na nag woote googu nga xam ne mooy woote jëme ci borom bi tabaraka wa taala nag ay cëslaay la am ci alquran ak sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da fekk alquran mu fees dell ci ay ayat yoo xam ne day tegtale ne dañoo war a woote jëme ci moom tabaraka wa taala mu leeral nañu jiitu ca woote yooye mooy yonente yi alayhim salaatu wasalaam seen mission bépp moo doonoon woo nit ñi jëme leen ci borom bi tabaraka wa taala amul kenn ci ñoom koo xam ne wax na lul ne day wax ne maa ngi leen di woo jëme leen ci ngeen jaamu borom bi tabaraka wa taala ca bañ a jaamu keneen ku ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo mujj ñëw diirub mu nekk diggante Makka ak Madinatu Munawwara dundam gépp moom mooy woo nit ñi jëme leen ci wéetal borom bi tabaraka wa taala woo nit ñi jëme leen ci jaamu borom bi tabaraka wa taala ba bi nga xamee ne mi ngi def xajam gu mujj googu ni mu ko waxee sànq muy xaj gi nga xam ne moom la xaj doon na xutba xutbam bu gudd bu yàgg boobee nga xam ne da koo yendoo bu xutbaa ba ci yàgg doon laaj benn laaj mooy ndax jotal naa ndax jotal naa ndax li ko borom bi tabaaraka wa taala ne ko woon wa maa alayka illa ndax def na ko saxaaba yi di àddondoo ci genn kàddu di ko wax na ko yow jotal nga yonent yàlla bi woo nga nit ñi laabire nga xeet wi kon li ko waroon def na ko mu ne borom bi tabaaraka wa taala seedeel ne kon liñ ma santoon def naa ko waaye mu tegoon ci lu am solo mooy kon ku ko fekke ci yéen na ko jotal ku ko fekkewul foo jo fekke ci yéen na ko jotal ku ko fekkewul mission bi nekkoon ci moom moo daal di war ci kaw jullit ñi wa innahu la zikru lak wa li qawmik wa sawfa tusaluun masuuliya la boo xam ne ku nekk da ko war yëg moo tax mu noon balligu anni walaw aaya benn borom xam bu di wax ne ballixu taklif la anni sharaf la walaw aaya ruxsa la nga xam ne jullit ñi war ci bàyyi xel bu baax a baax ci ne kon seen mission moom it ñoom it ku nekk ci ñoom sa kem sa xam-xam sa kem sa dayoo kam sa responsabilité dàngu boobu da war a yëg ni dañ koy war a liggéey sa ngiru dund ci kem ci nga nekk. mu leeral na nag responsabilité mu leeral ci biir waxtaan ne responsabilité dana wuute dayooy nit ñi ni ñu wuutee am na ñoo xam ne li leen war moom mooy taxaw njëmmeerlu taxawaay mat sëkk ci kattan ci doole ci nit ñi xam ne lii mooy woote borom bi tabaaraka wa taala jaar loo leen ci jaar am na ñoo xam ne nag lañ mën mooy wax kese am na ñoo xam ne lañ mën mooy seen xol di ca metti mënuñ ca saafara dara kon mu leeral ci bu baax a baax leeral na it ci yi nga xam ne ku ku daa ila allah mun mënu ko ñàkk yi nga xam ne ay jumtukaay lu mu ko ñàkk la ci jiitu moom mooy mu am xam-xam bu leer nañ xam-xam bu leer nañ mu am ko mu am ak sellal am jikko yu rafet yoo xam ne nag xem ne loolu nit ñi muy woo ci li nga xam ne leen di woo léegi tey moom mooy moom mi nga xam ne moo leen ci woo mu jiitu leen ci nga xam ne jamono yëpp muy jëfee li nga xam ne moom la ci lay tere yooyu ko bàyyi loolu mooy xëcc nit ñi nga xam ne ñoom lay woo xem même loolu leen ci lim leen di woo ngir mën cee wuyu wuyu wuyu bu gaaw a gaaw mu leeral ci kon leeral yu am solo yoo xam ne kon képp koo xam ne yaa ngi woote mënut a ñàkk nga am yooyu nga xam ne mooy jumtukaay mu leeral ci ci mujj ñan la ñuy woo ñan la ñuy woo mu wax ne ne adaawa ilallah koo xam ne dafa dugg ci lislaam moo ko tax a jóg mooy ko ca jiitu ka jiitu mooy koo xam ne ab jéefar la ab mushrik la kooku la ñuy woo jëme ko ci borom bi tabaraka wa taala moom moom moom daawa bi mu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ñu baree baree bari ci mbokk jullit yi xam ne seen woote dinañ ko génnewul seen ngir moom mooy fexe ba ñi duggul ci lislaam moo war a ci lépp loo xam ne ab wootekat mi ngi lal di ko nas di ko waajal léegi jote moom la ko moom mooy jullit boo xam ne dafa dese ay des ñu di ko jubbanti moo xam ne jëfe ay bakkaar wala day bàyyi ay ay ay ay ndigal di ko oyofal ñu di ko jubbanti di ko woo ba bu dee koo xam ne day defi bakkaar mën koo bàyyi waaye bu dee koo xam ne day jëf ay day oyofal ay ndigal yi borom bi tabaraka koo jëfe loolu mu leeral ci leeral yu ama am solo yoo xam ne koon yàlla yàlla fayal bu ñu doon tënk waxtaan bi dañuy wax ne mel na mel na kon képp koo xam ne yaa ngi doon teewlu dégg nga ci loo xam ne amal na la njëriñ boo ëllëg si biir bu ñu laajee leen mooy addaama ilallah nga mën koo wax buñ la laajee lan mooy usul yi nga xam ne mënu cee ñàkk ci alxuraan ak sunna ko wax laajee ñi nga xam ne ñi ngi la ñuy woo nga mën ko wax yow mi woote yan mooy jumtukaay yi nga mënut a ñàkk nga mën ko wax ak it melokaan yi nga war a am bi lu am solo loo xam ne ci jeexale ndax wax na ko ci biir dama ko fàttoon mooy yow mi woote nga xam ban uslub nga jëfandikoo ban uslub ngay jëfandikoo muy alxikma wal mawidata alxasana nga bàyyi xel bu baax a baax a baax booy booy waaraat ni moomoo nit ñi bindoo leen lasta alayhim bi musaytirin lañ waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa kon nga bàyyi xel nan ngay nooyale sa kàddu nan ngay laabire nit ñi nan ngay maslaa ñoom ba li nga bëgg a li nga bëgg mu dugg ci ñoom mu dugg ci ñoom fi nga leen bëgg woo jëme leen mu jëme leen fi ci loolu nga leen di terroriser ci loolu nga leen di def ak ak ak force nga leen di waxin waxin xam ne day tax fi nga leen waroon a jëmeloo li nga leen waroon a xemmemloo ñu war koon ginnaaw te fekk loolu ku nekk war na koo bàyyi xel bu baax a baax nga ne kooy mën a woo ku mën doon la borom xam eh, waxoon borom xam-xam ba ne ko woon na nga xam ne mënoo baax a baax ba mel ni muusaa wala nga gën ko waaye bënum ba baax ci Firawna te yàlla bi muy yónni Moussa ji Firawna dana ko woon moo Haarun fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yaxsha kon képp koo xam ne yaa ngi nekk daa'i ilallah war ngaa bàyyi xel uslub bi nga jëfandikoo war eh, bi nga jëfandikoo ba mën a jeexital baax a baax kon bokk li ma ne kon waxtaan wi day xam ne moo ko doon taxawee yàlla yàlla aar yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla yokk jumtukaay ba li ñu bëgg a liggéey dëgg-dëgg ñu liggéey ko ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo wuutu ñëpp ci liggéey bi damay faral ne ay ndaw lañ xam ne dañoo wuutu ñëpp seen liggéey bi seen waxtu yi seen xalaat yi seen doole yi seen lépp ñu bàyyi ko am nga ne weeru koor diiru weeru koor yëpp ko woon ginnaaw sa loolu dong doon sëkk ci fas yéene xidma kon war nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci eh, lépp loo xam ne nit mën na ko ci jàpp leen ko ci ay jumtukaay loolu waxuñ ko mën maa ko wax lépp leen waaye mën a jàppale ci ay jumtukaay doyut ndax ñoom lii ñu am ndey taxawaay yi ñu taxaw daan xam ne bu ñu amee jumtukaay yi waram dëgg dëgg dëgg dëgg barab bii danañ ci liggéey liggéey yu sell te boobaa dañ cee wut ñëpp ndax bu kenn nekkul ñun ñëpp lay war ñëpp lay war amul kuy mucc nag kilifa mën a doon boobaa da nga xam ne ñëw ci barab bi def lii waaq mu xaj ma mu xaj ma dox def daf laa war kon bu la ci wuutoo war ngaa xam ne kon yow wut na la ci xam ne sa loxo def leen faa war a fekk say doole dañ faa war a fekk say xalaat dañ faa war a fekk sa xam-xam dañ faa war a fekk dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon mbokk yi eh, incha allah taala